ci réewum Sénégal bu ñu sukkandikoo ci OFNAC ci rapport bi ñu mujjee def dafay xamle ne ger mi ngi wulee ñaay fii ci Sénégal lu ni mel nag lan moo ko waral ak jafe-jafe ci askan wi di dunde askan wi nag bi ñu taataanee seeni kàddu ku ci ne ak nang ko gisee muy lu wute lool sëriñ bi moom di xam ne ger baaxul ndax day yàq am réew. ger moom baaxul ndax day yàq am réew waaw lépp loolu moom par exemple tey def da ngay war a fay 1000 francs nga fay 3000 nga daal moom bari na bi. bari am na foo dem ci réew mi da nga ko fa gis. kii moom di xamle ni nit ñi dañoo jaay seen ngor ngir xaalis ba ci sax ñuy joxoñ baraamu tuuma nguurug Sénégal ci lu nu mel ngir ni muy doxalee ndax bokk na ci di ko gën a waral genn wàllug réew mi kenn jàngu ci jàpp nañu ne réew mu mu am du mën a avancer. te képp ku koy def ñu teg ci yoon ba sax am nañu jàpp ne ñi koy def seenu ñàkk pexe rek moo ko waral waaye ñi nga xam ne nag ñoo koy encaissé ñu seet ci yàlla te xam ne jëf la ju ñaaw ba ci sax ku ci ne nga doyloo sa payoor te bañ cee boole lii di ger ndax bokk na ci li yàqum réew yeewul parce que ñu ci bëri man ak ñoom a yem jànguñu parce que koo jox 10 000 francs tey bu fajal soxlaam mën na laa jaay boppam mën a laa jaay boppam noonu lépp ñuy def parce que ba ci wat bi da jox nit 10 mil francs pour mu jaale réewam parce que nit ñi xamuñu luy loolu da ngay gis koo xam ne dañ ko jox ñaari bi wala jox ko 20 000 francs pour mu réewam tay la ko bu muy xëy naan aw ma tëli wala aw ma aw ma dama ne la dama ne la corruption mooy mooy nguuru Sénégal pour pour prison mooy nguuru Sénégal liñ gis liñ gis liñ gis ci wàll yi rek da ko wane. yow mënoo nekk ci réew moo xamante ne bii kenn wàll gi kenn jàngul nga jiite leen ba pare ñun man yaakaar naa ne sax ñun wax dëgg yàlla amuñu président parce que ñun euh, euh, France moo ñu gëfal bu ñu bëggee dégg-dégg parce que gis nga njiitu réew mi réew moom demee France drapeau Sénégal nga jël ko Macron yëpp image ñu ko seetaan Macron la jëlee sa drapeau bi nga dugal ko sa poche parce que te Gambie ji tey boo ko fa defoon Gambie tey bu ñu yëkkatee drapeau boo jàllee dañu la door ba. xam nañ lépp xam nañ ñuy xëy seen bureau 11h xam na ñu xëy seen bureau midi dara ump ko ci. ah xam ñoom ñëpp nañ fi métti semence boo bëggee dëgg-dëgg li ci hôpital yi li ci police li ci procureur ñoom ñëpp xam nañ fi affaire yu xam nga réew mu moom am faaw réew ma du mën a jëm lu baax daal ndax. dafa doon loolu daal dafa dafa tegul fenn waaw te nit ku baax lool di def loo xam ne tegul fenn. ah li ma daal mooy su nekk comme yaa ngi nekk si yoon. na da nga war a fay loo war a fay nga fay moom loolu lu mu fay ci bàyyi la dem ba ci yoon dem jëgal jëlal sa tànk nga dem ba fañ koy def rek nga dem nga dëkk nga déposé ko nga defar nga defar sa bopp muy wàllu bu dee oto la nag cadre oto yi dëkk bi képp koo xam ne yaa ngi yor oto nga yor oto voilà boo dajee tey ci santam bu la laajee benn tëral nga voilà donc nit ñi si lislaam ñëpp ñëpp ñu mën a parce que am na loo xam ne ku doon dund doo dégg askan daal ñu yeewu parce que réew munoo fee nekk war a dund ci réew mi pare war a dund ci santé bu baax war a am ay hôpital war a liggéey ba pare sa réew di ko teere ci ñaari junni ngir wooteel nit pour pour ma am ndam ñaari junni nga lekk mu jeex loolu dama bëgg nit ñi yow nañ bàyyi réew mi ñu tey la waaw waaw jërëjëf li nga xam ne ñoo koy def ñi nga xam ne ñoo koy def mu ñàkk pexe tax ñu di ko def ña koy engagé nag laay dénk ñu ragal yàlla xool seen diggante suñu bopp xam ne yow comme dañ laa embauché teg la fi barab bu weer dee nga dem tàllal ñu fay la sa loolee daf laa war a doy bu la doy ñu seet leneen ñu liggéey rek liggéey am kenn bañ a soxlaal kenn dara ñi mu liggéey lu mu di leen fay kenn ku nu fay leen la war a fay bu ko defee jàmm day def ñooy góorgóorlu ci liggéey ak jaamu yàlla lool daal laa bëgg ko képp ko dugg li nga ne ci di ko def boo ko defee rek li nga bëgg soo doole ji léegi nag ger di gën a ñaay fii ci senegal terewul nag am kuréel yoo xam ne la ñu gën a taxaw ngir xeex ko